bonjour fi fidèles internautes Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jox wàcc wàccuwaay di amaat un réel plaisir di ñëw ci seen émission bi nga xamante ni moom mooy le point le point nag buñ ko waxee dinañu faram fàcce li nga xamante ni moo gën a fës ci wàllum actualité bi waaye aussi euh, parti politique bu nekk dina am ku ko fi représenté bu ko defee ñu mën a waxtaan ci sujet yu essentiel euh, ndaxte nag Sénégal mi ngi jëm ci beneen tournure probablement ñu ngi wax waxu euh, dissolution li nga xamante ni moom mooy assemblée dina am ak du am 31 euh, juillet ñëw na presque euh, nit ki suba la lu ci munti am loolu dinañ ko leeral waaye aussi ñëw ci li nga xam ne moom mooy déclaration de patrimoine bi nga xamante ni njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence le président de la république daal dina koy publier ci journal bi nga xamante ni moom mooy le journal officiel nga xamante ni képp kuy sénégalais rek am nga fa accès pour nga mën a xam exactement lan mooy immigration clandestine dinañ ko waxtaanee ndaxte jamono ji ça fait l'objet d'un débat waaye Karim Wade kañ lay ñëwaat parti bi nga xamante ni moom mooy PDS euh, fan lay mujjee ak li nga xamante ni moom mooy avenir am ci wàllu politique bien évidemment est-ce que Pastef dina am li nga xamante ni moom mooy majorité à l'Assemblée nationale ce sont des questions yoo xamante ni en tout cas dinañ ko discuter bu baax a baax alors damay tijji nuyoo bi ci ki nga xam ne moom mooy euh, Lat Dior Diop <laughs> Lat Dior Ngoné <laughs> surtout surtout Lat Dior ah maa ngi lay nuyu di la jaajëfal nga nekk euh, parti démocratique sénégalais ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay euh, lal euh, Rasoul sama jigéen maa ngi lay fay di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa kilifa kër gi Sénégal 7 mhm. ak waa réew mi tamit di nuyu sama naataango gi ma jaakaar lool borom parñi mhm. maanaam kon ci lépp di dalal ni teewal fii ak tam yi ñëw waxtaan si comme ni ñu ko nommee lii saa ne. Mhm. ngir euh, taxawaayu parti démocratique sénégalais. Mhm. ak doxalin ci réew mi point euh, d'actualité hebdomadaire wala maanaam ci semaine bi. effectivement sama waa gox sama waa jëppal Kastoor. Derklé mhm. waa Médina ak waa Parcelles. temps yi daa mel ni waa jëppal yaa leen ciy génne. <laughs> alors Saliou maa ngi lay bu baax a baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay nga nekk euh, coordonnateur GPS bu baax ñi en même temps bureau exécutif donc ma lay jaajëfal bu baax a baax ci sa teewaay fii ci Sénégal 7. merci beaucoup Lalla maa ngi lay fay nuyoo di nuyu sama frère bi ma bokkat plateau bi Lat Dior Diop mu turam bi macha allah <laughs> di nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp rawatina waa département de Rufisque. Je suis coordinateur de la ZIPES du département de Rufisque mhm. de de la commune de Bargny mm -hmm. avant d'être le porte du bureau mhm. waa département de Rufisque yëpp mhm. dañuy dem directement dans le vif du sujet euh, Lat Dior gis nga li nga xam ne moom mooy journal officiel bi njiitu réew mi amoon na kàddu yi fi jotoon jóg ci wàllum patrimoine am mais actuellement mun nañu wax ne lépp leer na alors question bi ñuy posé mooy am na ñu ne est-ce que salaire bi tuutiwul par rapport ak peut-être ñenn ci réew mi li nga xamante ni moom la ñuy jot comme par rapport ak njiitu réew mi. Euh, waaw loolu ñu ngi koy sant fi leeral yi ñu ko def euh, journal officiel u démb euh, nga xam ni foofu la état nguur di wàll di communiquer di wax. Euh, mu jot ci moom li mu déclaré woon bien avant les élections je pense que d'un iota maanaam dara soppeeku def ci moom la indiwaat euh, jëmale ci bor yi mu am jëmal 38 millions ci compte yenn banque yi ñu fiy bañ a wax. Mhm. ak euh, barab bi mu yor 200 mètres carrés ci Mermoz bi. Mhm. kër gi mu yor mooy barab bi ak évalué ko ci cent 140 millions ak am na ay tabax yoo xam ne tàmbali na ko jëm ci 134 millions. Mhm. presque li mu ci li ñu mën am na benn terrain tamit di jëm ci valeur bu 3 millions boobu Njagañaaw. Mhm. je pense que ak benn tamit à Sandiara de 4 hectares benn tool. Mhm. bu mu fa yor de 4 hectares bi mu yor foofu noonu à Sandiara euh, mën na ne am na découvert mën na maanaam dafa am euh, ay leb yu bari ay bor la toogee. ci jamono ji wante tamit dañuy xayma jëm ci li nga xam ni mooy salaire Euh, foofu la sacrifice bi di njëkk taamale don de soi bi parce que mm-hmm. tamit xeex bi dafa am ñu ci bàyyi seen bakkan ba lii jot a taxaw mooy mm-hmm. li ñu naan projet euh, mu indi ba tey tey yiñ ci bokk nag tamit dama koy leeral parce que tamit critique yi ñuy def defuñu critique de subjectif mais dañuy def critique objectif mooy maanaam dañu ànd waaye tamit dañu doxalee woon ba ñun ñu jëlee ñu fii teg fi Macky Sall ba Macky Sall jugee fi tamit ba ñi ñu àndaat ak yéen ngir mën a continuer Sénégal mooy tax kon lu ñuy wax dañ koy waxee ci Sénégal man dama jàpp ni million 4 millions 853 mille et quelque comme euh, salaire daf ko fi fekk. ci Macky Sall mais li ma gën a wóor ma li ma gën a euh, xaar ci loolu mooy la mu doon wax nañ ci jéem a wàññi ko parce que tamit l'état coûte cher aux citoyens sénégalais. Hmm. parce que defe naa tey jii dangay ngay nekk ko xam ni da ngay xëy di am salaire ru 750 000 pour un inspecteur des impôts ou 800 000 ou même je ne euh, euh, le barème mais boo ko amee ba tey jii daan président de la république lépp dañ la koy defar defe naa charge yi mu jël ci hôtel depuis trois mois du moo ko fay poosam. parce que ku am boru 38 millions fayoo ko sa yi nga dem di fan ñi dem di fanaan yi ci hôtel. mais charge yi ki ko fay. génn na wax ko Sénégal la yi ku ko fay. je pense que trésor euh, caisse Sénégal la. ok dinañ dinañ ñëw ci dinañ ñu mën ci gën a wàññi ko. Mhm. je pense que dafa bari. te woon moom loolu tamit danañ gën a dimbali pour wane ni ñoom ñu ngi sacrifié wu pour le peuple en quelque sorte loolu laa ciy wax mais tamit kam leeral li mu am daf ci gën na ko ministre yi tamit ñu fal ak directeur généraux yi tamit ñu mën a jaar foofu daf ñuy gën a dimbali ci maanaam ànd ak ñoom ci liggéey bi jërëjëf. Mhm. merci beaucoup Adja Saliou. waaw merci beaucoup Lal ci question bi président li mu def am na solo yoon mook euh, sant. Mhm. mu nekk képp nga xamante ne. am nga ay poste de responsabilité yoo xamante ne budget bi yegg na fenn fi nga def déclaration de patrimoine bu dee président c' est obligatoire muy président muy les ministres muy les directeurs généraux c' est obligatoire donc ñu ñu koy féliciter ci acte bi mu def muy acte boo xamante ne acte de transparence la ça rentre dans la bonne gouvernance ñu gis patrimoine mu nekk loo xamante ni tamit yenu na maana ci fonctionnaire ba mu doonoon nekk un au cadre de l' administration sénégalaise donc donc si dañ ko siy féliciter bu baax donc du lu jéggi dayoo ndax gis nañ fi président ba nga xamante ne ba mu defee déclaration de patrimoine am c'est à coup de milliards xam nga yooyu day tiital askan wi nga xamante ne ñoo la fal bu ñu gisee ne amoon ngay poste de responsabilité yoroon nga loo xamante ne ñëpp a ko moom après ñu gis ne ah ba ngay ba ngay nekk président ba nga déclaré sa patrimoine kat ah jéggi na dayoo nit ñi seen xel man na ñaaw waaye boo xoolee président yenu na maanaa ci fonctionnaire ba mu newoon ak poste yi mu occupé woon ak surtout ministère ba mu nekkoon donc du du du du de de de fameux pour maanaa fonctionnaire am au moins oto bu muy dawal kër gu mu dëkk di fa yeewoo njabootam peut-être ak ñaari terrain xam nga ñaari terrain ak tool pour man lu yenu maanaa la te du du patrimoine bu jéggi dayoo au moins dalal na xelu ñi xamante ne ñoo ko dénk te dafa nekk nit koo xamante ne aussi tamit jub jubal jubbante gi muy woote dafa nekk ci moom ay loxo set na loolu la ko ñi ko jege xamee loolu la ñi muy àndal ci langue politique bi xamee. Mhm. alors euh, comme li nga wax Euh, prêter dafa attirer sama attention euh, parce que euh, hôtel Azalaï ñu bëri ñu ngi doon lam-laamee que ni état bi moom moo ko géré wala boog état bi moom moo fay li nga xam ne moom mooy séjour yi ñu fa doon def ainsi de suite mais j'oublie son nom parce que démb jot nañu jot naa gis benn publication bu mu def muy apporter ay leeral par rapport ak li jëm ci wàllum hôtel Azalaï que ni moom moo génnee xaalis ci gafam bu fayalee ko ñi nga xam ne ñoom ñooy njiit ñoom mooy président de la république ak euh, premier ministre bi fi nekkoon à l'époque euh, bi bi ñu nekkee hôtel Azalaï. Azalaï ok euh, loolu tamit dañ koy rafetlu ah, bon ci jëm mooy que. damay wax coût de vie la coût de vie ak cherté bi ak tamit yenn facilitation yi parce que tey déplacement am yi à l'extérieur déplacement am yi au sein déplacement est-ce que mën na ñàkk nag non yooyu yëpp non dama bëgg a wax euh, les 4 millions ça dama bëgg a revenir carrément ci xaalis bi la salaire. Mhm. comme ni ñu mënee sacrifier wu di demander appel à candidature pour les postes di demander sacrifice à ce que tout un chacun se donne maanaam dañuy joxe suñu bopp ngir réew mi. Mhm. nañ ci mën a moom tamit dimbali ñu wàññi wax waxtaan wàññi un peu. ñu jëmaat ci ministre yi ak député yi ñooñu tamit wàññi ci seen i ay euh, rémunération wala mhm. seen i commission maanaam à tous les niveaux que ñun ñi di wàññi seen i salaire mën a taxaw tamit pour mën a dimbali ñu ñu ñu tamit xeex ci coût de cherté wu vie bi. Mhm. voilà loolu foofu mais kanta à Diomaye comme ni ñu ko weexee bon sa déclaration. mooy avant élection te lii la ñu gis. Mhm. te sant yàlla. alors Amadou Chérif Diouf. ok Amadou okay. Ah, Amadou Chérif Diouf. ok moom moo jëloon le moo jëloon. moo jëloon les frais. les frais pour fay hôtel Azalaï. ok pendant seen séjour yi ñu fa def yëpp seen yi ñu def ok. no non dama bëggoon wax foofu ñoom fayuñu ko mais dama bëggoon wax seen état sénégalais. moo koy fay parce que déplacement am ak lépp. bon te xam nga tamit dëgg la président la lépp moom dañ la koy yombalal. daa nga koy yombalal kon salaire bi ak coût bi déclaration de patrimoine bi moom euh, dañ ciy gën a sant bu muy gën a leer muy gën a bari par rapport ak son prédécesseur moom du ay waxam sa pour nga wax ci dafay jafe ci ñun <laughs> parce que ñun moom loolu du ci sori <laughs> Macky Sall ak ñun moom naxaan dañ amee yéen a àndoon nag ay temps non du tout mosuñu ànd ah. Macky Sall dañ mës a nekk républicain dañ opposé wu ak yàlla mais on ne peut pas parler de moo ko wax ah, bon ah, ok dans les années 2000 ok ci ñun la jaar ci ñun la tàggatoo loolu personnal personnel discovient ñun ñoo ko defar ñoo ko kii mais daf ñu jam jamu gun paaka gannaaw. amee ah, nekkul isa nekkul woon ku nekk ak sa intérêt. paaka gannaaw la ñuy non du tout loolu moom <laughs> beneen débat la te mën nañ ci ñëw. d'accord mën nañ ci ñëw mu euh, euh, euh, une parenthèse Saliou tey yow bokk nga ci ñi nga xam ne peut-être yéen ngi ci GPS yi. Mhm. ku wax ji GPS wax jeunesse. Mhm. tey. am na ci jeunes yoo xam ne bokkoon nañu ci ñi martyr yi ngeen wax ne projet bi jaral na leen lu nekk alors emploi des jeunes nekk na loo xamante ni moom mooy premier facteur boo leen war a éradiquer tey ñu ngi toll ci période boo xam ne immigration irrégulière bi commencé na am na ñu ñu intercepté am na ñu commencé dee am na ñu jot a départ am na ñu demagul am na ñuy waaj a dem alors tey ñëpp di xaar politique de jeunesse boo xamante ni peut-être dina fi mun a téye ndaw ñi ñu mun a toog loolu ñu ngi ciy xaar Pastef bu baax a baax mais dafa mel ni euh, amaguñ ci gisaguñ ci ay solution yoo xam ne peut-être yéen a ngi koy préconiser à à cet endroit. merci laaj bi am na solo ndax euh, dafa nekk loo xamante ne bokkoon nañ si ñu ko doon xeex bëggoon gën a ñoŋal mbir yi soppi li fi nekkoon. looloo taxoon jeunes yu bëri am confiance ci Pastef ba xoolee Pastef ndaw ñi ñëw ci ëpp doole loolu nag yaakaar googu ndaw ñi am ci Pastef la rek te boo xoolee suñu politique suñu projet bi mooy wàllu xëyu ndaw ñi daf ci am pàcc bu am solo xam nga boo xoolee ci cinq axes yi euh, la la la politique les politiques liées à l'emploi de la jeunesse dafa transversale dafa touché ci axes yëpp. Mmh. tey ji boo xoolee boo fàttali ko le président Diomaye ba premier conseil des ministres bu mu def dafa joxe cinq axes prioritaires yoo xamante ne c'est inspirer euh, du projet. projet moo ko inspiré. cinq axes prioritaires bi njiitu premier axe bi boole dafa nekk la jeunesse la formation l'entrepreneuriat l'emploi boo xoolee axe yooyu loolu la njëkk euh, moom la njëkk a cité comme axe prioritaire loolu day wan gëdd bi ñu jox c'est tout ce qui est à la politique de l'emploi et de la formation. donc am nañ yaakaar ni euh, mesures yi ñu war a jël yi ñu war a teg dina résorber problème boobu noonu léegi nag dafa nekk loo xamante ne du ay dëbb-dëbbal moo koy régler c'est des politiques conjoncturelles parce que loo xamante ne 60 ans wala 64 ans d'indépendance faju ko wala book dañ jàpp ne sax problème bi dafa gën a yokku du doo ñëw rek régler ko ci 3 wala 4 mois donc il va falloir que nga teg des politiques conjoncturelles pour résorber définitivement le problème problème boo gis da ngay xool cëslaay ga lan moo waral problème bi am donc tant que lii ko waral les causes réglé loo ko te auras toujours les mêmes effets les mêmes conséquences te ñun ci loolu lañu nekk moo waral dañoo jàpp ne lu jëm ci ndaw ñi mbir mi mu ngi commencé d'abord ci jàng mi jàngale mi système éducatif pour ñun loolu la ñu war réformer def benn système éducatif boo xamante ne conformé na ak suñuy bëgg-bëgg ñu dem ci l'enseignement technique et la formation professionnelle parce que loolu ñun déjà dañ ko jàppee comme levier de l'industrialisation du pays comme aussi benn moyen pour ñu euh, pour l'emploi l'employabilité des jeunes parce que jeune yi jàpp nañu ni am na si ñoo xamante ni tey ñuy dem xëy na mënuñu dugg ci le monde de l'emploi parce que xëy na seen formation yi ñu am wuute na bëgg-bëgg yi fi nekk am na si ñoo xamante amuñu sax formation am na si ñoo xamante ne am nañ si liñ jàpp mais dañoo jàpp ne seen li seen maanaam seen teddaa ngi nekkul Sénégal donc dañoo ñàkk yaakaar Sénégal lii ko waral nag du dalul problème yi ñoo ngi fi ba tey jeunes yi dinañ continuer dem xëy na ñenn ñi parce que dañuy jàpp ne les problèmes sont toujours là les souffrances sont toujours là waaye li ñu war a xam mooy gouvernement bu bees bi ñoo ngi si déjà ku gis gouvernement bi ni ñu ko tëggee rek xamante ne am na sax benn secrétariat au ma e et mii pour wan euh, dayoo bi xamante ne wala bokk solo suñ jox ñi xamante ne yëpp ñoo nekk si milieu di entreprendre l'entrepreneuriat da nga xam ne. mais est-ce du mbir yi moo moo yéex. maanaam duñu du ñu sentir carrément sentir ruñ leen exactement par rapport ak. lalla si sens boobu en fait. foofu laa bëgg a pourtant mu ngi am sax yéexul boo xoolee déjà rek benn genre retour grande offensive bi am vers l'agriculture day wan ne yéexul parce que déjà ñu ngi bëgg impliquer jeunes yi pour pour que ñu dem bay autosuffisance wala sécurité alimentaire boobu ñu bëgg dañ ko yaakaar ndaw ñi industrialisation bi xamante ne moom bëgg Sénégal ndaw ñi lañ ci yaakaar. donc ce faisant da ngay absorber chômage bi fi nekk tey ji politique entrepreneuriale yoo xam te ne moom la ñu bëgg teg yu si mel ni euh, former ndaw ñi d' abord accompagner leen yu mel ni ay agence yoo xamante ne ñoo leen di aider ñoo leen di aider si euh, accompagnement bi des des des entrepreneurs comme la grande agence gouvernementale pour l' emploi et le travail bi xamante ne prévoir nañ ko mettre en place yokk budget ministère de l' emploi et du travail xamante ne dañuy accompagner les entrepreneurs nit ki boo bëggee investir si dara dinam am un accompagnement technique mais aussi un accompagnement financier euh, en en changeant un peu les politiques de financement en rendant accessible les financements parce que actuellement nii financement bi fi am financement classique aidewul les entrepreneurs donc jeunes yi ku si bëgg a entreprendre tey tellement difficile ce qui fait que ñun on a prévu par exemple le livret d' épargne euh, du patriotisme économique et populaire pour Euh, entreprise yu ndaw ñi wala ñiy bëgg entreprendre mën a accéder facilement au financement yu mel ni aussi les banques postales yu ñu utiliser avec le réseau de la poste pour accéder pour pour que jeunes yi mën a accéder facilement au financement boole ko accom un bon accompagnement dangay dangay da bi résoudre déjà le problème de l'entrepreneuriat mu des tey jii euh, l'emploi problème emploi wax naa ko léegi dañuy renforcer tey jii doole ministère de l'emploi mm-hmm. et du travail mais am na un programme gunge pour que te loolu sax dañ ne si programme bi gouvernement bu njëkk bi moo koy mettre en place boobu dafa nekk mesure yoo xamante ne da nga koy teg ay mesures à court terme la à moyen terme yoo xamante ne di ko teg pour déjà fexe ba insérer dans le monde de l'emploi les diplômés. d'accord d'accord Saliou dina dinaa ñëwaat ci loolu alors euh, lat hémorragie yi émigration irrégulière bi euh, heure bi daaw moom c'était catastrophique. te bu ñu bu ñu seetaanee peut-être mm, nañ duggaat ci loolu kenn ñaanu ko yàlla alors Daar Daar am na lu ci sëñ Saliou jot a développé mais réellement lan nga jàpp ni moo war a nekk d'abord mesures yi gouvernement bi war a jël pour stopper hémorragie bi en attendant ñuy gën a dem dans le dans les réformes les plus profondes. Ah, loolu moom euh, comme ni ma koy faral di waxee ak sama yenn xarit euh, à chaque fois. L'immigration clandestine ak euh, problème des marchands ambulants du Taïwan ça date de plus de trente dafa xaw a xaw na metti pas mal de solutions Abdou Diouf bon amul woon une bonne presse bon média xam nga tamit amul woon une vulgarisation médiatique. Mhm. Euh, média yi bëriwul woon mais su wàdd gën a bëri coow li gën a bëri gën a yàgg chaque fois gaal yi. gaali euh, mur yi au Maroc et autres ensuite tey jii li ci gën a fës mooy ay Nicaragua ak naa maanaam l'exode moom dañ ko naan rural la mais c'est beaucoup plus même euh, international mm-hmm. voilà diaspora pour euh, des solutions de crise euh, causalité yi ngay njëkk a xool causalité yi lan moo koy indi pauvreté la pauvreté euh, recherche de meilleures conditions de vie je pense que même suñu autorités yi suñu personnalité yi tey seen i doom jàngi Europe Euh, bu ñu paree seen i jabar yi seen soxna yi maa ngi jégalu maanaam dem euh, muccee Europe euh, bu ñu bëggee feebar bu ñuy tawat maanaam ñun ñëpp. ah c'est un peu beaucoup plus psychologique ah je pense que même euh, c'est physionomique maanaam dafa doon loo xam ne ci biir euh, rôle la. <laughs> xaw ma ndax am may bëgg a comprendre parce que man dama gën a soxor sax ci <laughs> analyse ah, man moom yow ma ci ay vraiment des théories yoo xam ne en n'en plus finir <laughs> parce que chaque fois li ngay wax li ñuy wax nii ce sont des solutions yoo xam ne sax du ma ne Macky Sall mais Ablaye Wade sax def na ko te échoué nañu te échoué nañu. mais man échoué sama problème mooy. échoué boobu moo moo warul nekk lu continuité en fait. warul warul nekk constant quoi échec boobu mais pourtant chaque jour da nga gis dix gars la ñu taxaw sans compter oto horaire yi jëm Mauritanie jaaree pour yoonu Libye. gars yi ngi dee te te léegi départ du Sénégal Mauritanie la ñuy départ. Eh? Mauritanie feneen horaire Mauritanie Mali yi ñooy jóg kenn waxatu ko moom moo ëpp sa horaire Touba yi Dakar Touba wala Dakar Ziguinchor. yii dem Mali Bamako Béthio la Ross Béthio la ñoo ëpp pour dem après jaar Libye ñenn ñi dee Algérie pour tëb benn mur dugg Barcelone wala dugg à Paris ou Italie Nicaragua bi moom kenn waxu la nu mu toll mooy ñiy jaar Brésil ak yooyu c'est-à-dire que ñin ñee ngir daw mm-hmm. d'une certaine manière li koy indi pauvreté bi la li condition yi nga xam ni tamit recherche de meilleure vie ak tamit benn ascension sociale mooy maanaam bu ñu fa demee ci ñaari at la am fii ci fukki at lu koy indi nag mooy mooy li may tàmbali di gën a wax li may tàmbali di gën a wax li koy solution yi mm-hmm. mooy li fi jomaay ak ñun ak ñeneen ñi nekkoon dans l'opposition ku nekk ak sa manière de faire mais ñoom ñoo ci gënoon visible par rapport ak euh, ñun parce que on n'avait pas notre candidat sur place bon doon nañu communiquer pas mal de choses. mais gars yi nee loolu peut-être politique boo leen rattale depuis des décennies ah. pro. politique bu ñu rattale depuis des décennies. bu ba depuis ëpp euh, na décennie est que loolu du du quinquennat est-ce que loolu sa siècle. waaye <laughs> est du siècle. Hmm, doy na waar. cest à que ñun bon fële moo gën daal. fële moo gën ci lépp. xam nga loolu lañ def ñun ñëpp muy léegi nag euh, nan la ñuy toogee ba gars ay xam ni sa benn hectare boo ko yoree gaaw gaaw ci ñaari at moo gën a gaaw sa hectare nga béy ko. génnee ci ay mille sacs de soble moo gën a gaaw nga dem di liggéey fukki weer foofu. Mm-hmm. ci benn ñaari weer ñetti ñetti suqali. loolu il faut ñoom ñu dem ba dellu si loolu tax gisoo la plupart ñiy gën a dellu si. Mm-hmm. parce que gis nañ ne léegi ci côté boobu. Mm-hmm. investisseurs yi de ñëpp daw nañ songu. agriculture agriculture mais ñi ko gën a songu mooy ñi jugee diaspora. seen loolu la ñu voilà gis nañ demoon daaw. waay liggéey boo doon xool pour cent. waay ñun ñëpp doolu la ñuy am xam man xam naa leen ñu ngi dem mm-hmm. toog liggéey actuellement nii léegi nag defuñu dara léegi nag li koy indi mooy politique bi ñuy gën a mën a am mooy politique vulgarisation bi nga xam ne tey dama leen jaral xam nga moom laay wax tey Sonko ak Diomaye fi ñu bëgg a yegg mën nañ fa yegg facilement parce que li ñu bëggoon yegg si mooy doon président jiite réew mi indi projet bi mm-hmm. mais daf leen jaraloon ay bakken kon jaral na leen seen bakken ñoom buñ tëdd ci prison ba mu jaraloon ñun ñoom seen bopp seen njaboot ak kenn ñeen seen waa kër yëpp ñu leen fitna kon daf leen war a gën a maanaam gars yi warul tuñ. ndaw nga jàpp ni jaral jaral bi dafa des. waaw non non waruñu am maanaam non waxuma jàpp ni dafa des parce que on est à 100 jours mënoo ko tagal benn bilan. dañuy ñaan yàlla nañu yàlla may ñu fekkee ñun ñëpp. fu mm-hmm. Diomaye di taxaw di présenter son bilan. te yàlla musiba am dara bu am mu fekkee ko donc dañ koy ñaanal parce que nous quoi qu'il en ah, man ñu la laay wax. on républicain dañ nekk di jàppale on a voté pour Diomaye. d' accord lu leen engagé daf ñu engagé. on a voté pour Diomaye boobu foofu laa bëgg fu mu toll nii dee na nax sax na moom. moom existeetul sax loolu la ñu bëri jàpp. tey ñëpp doon xaar retour Karim. Karim kenn gisu ko kenn déggu ko léegi man sama problème mooy Lat Dior yéen est-ce que sans Karim parti bi dafa mënut a dem wala qu'est-ce qui se passe. waaw côté boobu tamit. parce que loolu man. man bëggoon naa xam exactement lan mooy couac bi am. ci biir parti démocratique Sénégal. ma quoi bi si am mooy dafa sax li ma ciy ñeme nit ñu bari duñ ko ciy ñeme wala sama rakk. non je sais man xam naa ni gars yi duñ ci bëgg a débat duñ ci bëgg a wax. a expliquer quest moom Sabou koy ñeme day ñeme songu liggéey bi. Mhm. ci loolu on va communiquer mooy que par exemple ba mu neex ba naqari bon Karim c'était bon profil Karim il a subi li nga xam ni par exemple tout le règne de son père. Karim moo ci taxaw taxawaay bi nga xam ni seede nañ ko tey après des ni. ab Diop jox nañ la gars yi ñeneen yàquma der mais dañ leen jox seen doom yi di génne di fooyee 500 millions ñii ay sooy kii di tal kii di ngénte ay fas maanaam la gabegie waaw ñi ñii di def ay xaw ma Idrissa Seck di def ay virement 7 milliards ki 10 milliards coow yooyu yëpp toute la gabegie autour maanaam li ñu daan saagaa laay wadd du woon ci doomam mhm. te pourtant ñu ngi ko dénkoon Macky Sall di la wax naa la 8 milliards la ma may lii ko amoon li ñu saaga li ñu tam yëpp Karim rek moo fa desoon te moom li mu ci ko joxoon moo gënoon rëy mais liggéey na ko ba nga xam ne tey kenn mënul gis benn rapport wala kenn mënul gis benn lu ñu audité ne signé na ko fii jël na dugal na ko ci compte laal la wala moom moo ko dugal ci compte am jàpp nañ ko bon bi ñu koy jàpp moom moo jëlal fitam ak sañ-sañoom wàcc si ñëw ñu dugal ko tëj ko trois ans et six mois après génne exilé mu dem. Mhm. bon léegi li am loolu yëpp fekkee nañ ko li fi jot am loolu yëpp. c'est le bon profit parce que tamit je pense que ku yoroon cinq ministères kenn du xëccoog yow sax ni candidature à la présidence boo leen. waaw mais dafay toll foo xam ne nag bu candidat bi mënul dem il va falloir ngeen jël seen destin en main. candidat bi bëgg na dem dañ ko bloqué woon. waaw mais parce que vous n'avez pas prévu. beneen kan beneen alternative. non xalaatuñu ko woon ci euh, certaine manière on avait quatre-vingt-dix pour cent ñëpp xamoon nañ ko parce que bon je pense que par contumace le 23 juillet 2023. Mm. la ñu jàppoon Sonko. ak mm-hmm. euh, Diomaye Faye bon Diomaye sax calculé wuñu ko woon. et pour Sonko le 28 20, juillet. le 28 juillet merci beaucoup 28 juillet 2023. lañ jàppoon Sonko dañ ko arrêté corruption de jeunesse. Mm. voilà ci affaire kii bi deux ans euh, trois mois ou quatre mois après Mbaye Mame Mbaye ci la ñu procès boobu lañ ko éliminé woon des élections c'est-à-dire que Pastef moom après dissolution et autres. existé tutul woon. ah yéen ngeen jàppoon ne daal ñun bon course. te tamit leeroon na quoi non mais affaire bi <laughs> tamit leer na leeru mooy li nga xam ni dama koy delloo si rek Cheikh Omar Anne li mu wax ci benn plateau télévision tout récemment mhm. ak julli bi tamit tabaski ñoom ñaar ñu ànd Amadou Ba ak Badio Camara ñu ànd julli seendoo. Mm. ñëpp yooyu yëpp tamit gis nañu. y a des choses yoo xam ni ñun ñi toog nañ ko wax ko ñu ñëpp mu leer gars yi wax nañ ci ba sonn teg leen ko si table bi mu leer. Mhm. mais 98 pour cent personne boo xam ni xalaatuñu ko woon ah peut-être que d'une certaine manière ay couac la woon ak jeu de mots de croix euh, euh, mots croisés yoo xam ne dañ ko doon def. au niveau de la justice yooyu pour l'éliminer parce que Karim était l'homme mais la moo taxoon ngeen jiw à ne Amadou Ba ah, moom euh, ma ñëw du ñu moom plan am la tegoon mais dernière minute bi nga xam ni. dem nañu ba amatuñ dara sës nañu yi jàpp na xëcc na comme ni ko du Ba di wax reporté na collège électoral bi gars yi la candidature de Diomaye Faye bi nga xam ne xalaatuñu ko woon à pour cent sax 2 pour cent kii muy passé jàll na mooy la pour après mu ñëw gars yi xeex xuloo ko. ba mu taxaw bon benn moment ñëpp jàppoon nañ ni sax ñun PDS dañu bëggoon Macky Sall continuer fii jusqu'en décembre wala naa nga mais ah, mais est-ce que du est-ce du aussi fast track bi ni ngeen ni ngeen defee woon affaire track euh, <laughs> imaginer ci fraction de semaine waaw boobu APR yooyu yëpp ñoom tamit dafa amoon euh, des dissidents auprès du candidat de leur candidat kon yéen da ngeen doon joxar maajoor joxar leen seen biir euh, ak pour faire maanaam indi sa nit waaye moo yóbbu dialogue gars yi d' accord ñu loi d' amnistie bi pour libérer les les euh, détenus politiques mhm. bon moo indi ñu libérer le lendemain ñu ñoo ko voté sax du waawoon passif parce que euh, euh, Serigne Ndiaye xaw ma Bara Dolly ak ñëpp dañu clamé ne ñoom dañu ko voté waaw passif ak kenn nanguwu ñu woon voté mais dañ ko voté ñun ñoo ko jël en main avec certains députés de Benno pour ñu mën a def li dialogue bi wax yëpp bi ñu ko génnee dafa tamit réintégration de la candidature de Karim mais bon d'une manière officielle moom dafa doon soxla mu ñu déclarer. léegi man sama problème mooy fu ngeen jëm maintenant toll nii nag voilà loolu moom c'est déjà clos par la dernière fois ñoom def nañu def nañu renouvellement yi au niveau de toutes les instances ba installé hmm. bon li ci am mooy euh, mag yee ngi fii la plupart euh, mooy comme euh, Doudou Wade Woré Sarr ak d'autres ñooñu est-ce que parti ay mentor lañu. jël leen seen dessin en main ah, nag mentor la jor non mais defal naa da ngeen di jël seen dessin en main dessin en main mooy pas fi parti bi kenn mënu ko jégaane yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. amiin suñu maam Ablaye Wade waaw yàlla na fi yàgg te ànd ak wér. Mm-hmm. li koy ñaan mënuñoo ko jégaane parce que defe naa moom la mooy politique Sénégal. d'accord mooy politique Sénégal. moo tax boo mënee jël sa dessin mais bon da ngay def ni Serigne Diop Sadarta wala nga def ni Idrissa Seck wala nga def ni Macky Sall nga dem nga sañ si sa yëf mais tant que yaa ngi PDS da ngay topp ci ay ndigalam. ok. loolu loolu leer na kon ci ci ci côté bu alors Saliou très rapidement rek balaa ñu jeexal euh, gis nañu que ni lu bëri mi ngi taxaw seen euh, mën naa wax ni ak quatre-vingt-quinze pour cent il va falloir loi organique yeeg loi financier yëpp ñu xoolaat ko pour mu jaar assemblée tey dañuy gis au sein de PASTEF ñu ngi wax probabilité dissolution de l'Assemblée nationale pour que tey yéen ngeen mën a am benn majorité. pour mën a doxal liggéey bi est-ce que loolu aussi dina yomb ak contexte bi ñu nekk te tey déjà am na impasse bu am ci diggante exécutif bi ak législatif bi muy wàllu règlement intérieur bi dox ci diggante assemblée ak premier ministre ci wàllu DPG bi. Hmm, jàpp naa ne dissoudre assemblée nationale léegi la gën a yomb sax ndax dañoo jóge si élec déjà la constitution may na président euh, président bu bees bi toog mu dis mu dissoudre assemblée nationale bu fekkee assemblée national bi am na deux ans. waaw mais ñoom bu ñu paree mun nañ saisir aussi conseil constitutionnel. waaw d' accord. acte yoo gis d' habitude am na des voies de recours. Mhm. voilà maintenant président bi dafa toog 54 pour cent des sénégalais fal ko. Mhm. la nekk sa assemblée nationale reflété wu la volonté populaire actuellement nii parce que 54 pour cent de sénégalais ñoo ne président Diomaye Faye la ñu bëgg mu doxal. Mhm. te président Diomaye Faye bu waree doxal dafay dafay soxla tous les mécanismes qu'il faut pour mu mën a doxal. noonu la soxlee le mécanisme parlementaire mu mën a jàllale ay loi am yi mu bëgg pour mën a teg des réformes teg réew mi ci yoon. Mhm. surtout que nag instant bi on a plus de quatre-vingts projets de loi yu disponible mhm. on a plus de deux cents projets de décret yoo xam te mu ngi taxaw. ah te gars yi nee nañ yéen leen projet. yooyu yëpp ci réforme yi ñu war a mëne la parce que on doit y a beaucoup de choses à changer. ku bëgg a li nga war a mhm. changer bari na li nga war a changer na. donc da du assemblée nationale bii nii bi fa nekk xamante ne coow xuloo xeex des député d'un parti politique ñu fa nekk di tànn euh, ñu leen di wax fu ñuy xool fu ñu dul xool ce ne sont pas des députés des sénégalais ce ne sont pas des députés du peuple mais des députés d'un parti politique te loolu moo dangereux pour pour pour pour dans ce pays là. Mhm. boo boo xasee ba dem assemblée nationale da nga war a fàttali ko di bàyyi xel li la fa teg. nga xam ne askan wi ñoo la fa teg nekkal seen i intérêt mais bul nekk si intérêt kenn nit mhm. donc il va falloir que tey jii ñu dissoudre assemblée nationale ñu mën a dem des élections le plus rapidement possible effectivement respectant les délais bien sûr mhm. dem ci ay élections euh, que la volonté populaire s'exprime ñu am fa majorité ñu ànd doxal li ñu bëgg a doxal réforme yu bëgg a apporter pour le bien des Sénégalais ñu mën ko apporter. Mhm. dara bañ bañ a bloqué tey jii tey est-ce que du au sein du parti dafa am nit ñoo xam ne peut-être dañu dañu sentir ne euh, frustration dafa am parce que da ngeen woote jub jubal jubanti mhm. l'homme qu'il faut la place qu'il mhm. ngeen woote rupture mhm. donc am na yoo xam ne peut-être buñ koy gis ci ñenn ñi nga xamante ni ay kilifa lañ ci biir parti bi ñu koy doxalee est-ce que du jamono ji aussi manque de communication am na seen biir wala ilaa wa ilaa nomination yi am na ci ñenn ñoo xam ne jàpp nañ ñi ñoo gën a yeeyoo poste yu ñu jox ñenn ñi. bon aw ma yaakaar ni loolu la nag parce que li ngay wax noonu man dégguma ci man maa ngi si biir Pastef mais mhm. dégguma ay frustration wala ay maire yu jib mhm. man dégguma ko wala gisuma ko waaw président Diomaye Faye ñi ko fal wóolu nañ ko jox nañ ko les coups de franche mu doxal. moom mooy tànn moom premier ministre ñi xamante ne jàpp nañ ne bu ñu leen wóoloo teg leen dinañ doxal liñ bëgg ñu doxal ko te ñoo ngi koy def. te lépp luñ ci def incha allah ànd nañ seeg ñoom. tant que mu ngi nekk si njëriñu Sénégal ànd nañ seeg ñoom te am nañ yaakaar ne lépp luy njëriñu Sénégal rek si dox. alors ci biir vacances agricoles yi. Euh, daan nañu gis ne peut-être bi ngeen nekkee ci opposition bi dañ doon dégg débat bi lu bëri mais vacances agricoles bi peut-être engouement bi mu daan am ak pas Pastef bi ci nit yi daan am dafa mel ni ren sentir guñ ko carrément. est-ce que du ren la ëpp kii sax parce que xam nga en 2020 dañ doon soog a tàmbali dañ doon soog a tàmbali c'était l'année zéro ñu soog a tàmbali ñu dem 2021 22 yi xew-xew dëkk bi xam nga rek ñu ñu fitnaal amuñu woon temps sax déroulé li ñu bëggoon a déroulé mébét yu rafet yi amoon pour réew mi donc ren ji pour man dawe bi mu am sax amu ko woon ndax ren ji boo xoolee par exemple jeunesse bi surtout la jeunesse patriotique ci impliqué woo. démb si guddi rek laa jóge réunion démb ba si guddi rek laa jógee réunion pour nu ñuy def ba jeunes yi am te ñooy bay am jiw bu doy am engrais bu doy mën a dem bay ji actuellement toutes les jeunes patriotiques des départements am nañu ay tool jeunesse patriotique département de Rufisque barki démb dimanche lañu jóge tool ñoo ngi ci tool yi di bay ndax loolu dañ jàpp ne en dehors de l' économique maanaam bay jaay. ah woote benn aspect yéen a woote autosuffisance. effectivement alimentaire autosuffisance. sécurité alimentaire sax ñun dañu yéen a ko woote sax autosuffisance. sécurité voilà woote. Mhm. c' est à dire dañ ñun dañ jàpp en dehors de l' aspect mhm. dafa am beneen aspect muy l' aspect mhm. gis nga ndaw mi xamante ne xamul tool masul gis pour bay masul gis fu masul fekkee fu ñuy bayee wala moom dafa jàpp ne bay dafa am ñu ñu ko jagleel maanaam il faut nga nekk si village yi pour wasu bay ndaw moom boo ko jëlee woo ko yaa ngi koy nàmpatal si mbay nga koy tàggat wax ko processus yi yan mooy yan phase la lan ngay njëkk def boo lan nga ciy teg boo lan nga ciy teg lan mooy cycle jiw bu nekk culture bu nekk. Mhm. mu xam ko kooku après da koy jox benn appétit bi da koy jox benn goût bi moom day bëgg am lu mu moomal boppam. après na nga ndaw ñooy boo leen tàggatee pare da nga leen di organiser pourquoi pas ñu dem ba si ay groupement euh, kii ay coopérative agricole ñu dem bay ñoom ñuy moomal seen i mbir bopp di bay. donc ñun loolu moo nekk suñu mëbët donc c'est pas l'aspect économique rek parce boo amee benn 2 hectares 500 wala 3 hectares benn 100 jeunes nekk fa xam nga loolu ndaw na si ñoom waaye l'aspect pédagogique moo ëpp solo te tey jii gis nga li ñuy def noonu on est en train de de de de une grande offensive vers l'agriculture jeunes yi ñuy impliqué nii ñuy bay ministère de la jeunesse def na ko te ñun jeunesse patriotique avant sax ministère de la jeunesse li ñuy def ni lu am mm-hmm. li mooy dundal Sénégal n'attendez pas qu'on vous donne un emploi vous pouvez créer votre propre entreprise man ngeen am seen i tool employé nit di bay di dundal réew mi après ñu dem vers la transformation et que loolu rek la mën a endogéniser suñu économie bi xamante ne moo nekk suñu acce 2 suñu programme. Mm. donc on est en de former euh, des jeunes euh, ñu xam ne lii kat mooy muccuk Sénégal bay li ngay dundee dundee li ngay bay. du di mm. ndax boo jéggaani ñu imposer lay prix doo mën a wàññi. dund gi di gën a cher boo jéegaane la ngay jéegaane boo ko amul doo dund. Mhm. donc li nga moomal sa bopp moo gën a wóor. te ñun c'est ce qu'on est de faire avec la jeunesse patriotique du Sénégal mu am mu nekk lu am solo. Mhm. di si woo les autorités surtout ñu ñëw dugal seen loxo parce que actuellement on est de le avec les moyens du bord. à Rufisque on a un budget de un million et quelque à couvrir te loolu yëpp suñu moyens du bord lañ koy defee ñu ñu on a on a quatre cultures. Euh, dañu am maïs. maïs mooy mboq. mboq ñebbe gombo ak arachide. gombo mooy kii kañ. kañ waaw te mhm. on a un agronome boo xamante ne moom lañ jël confier ak le projet chaque étape day toog former jeunes yi ne leen. lii la dinaa ñëw vérifier ko personnellement. si tool il loolu foog ñu def sa descente. reportage ma xool ne dëggantaan njaay yéen a ngi bàyyi. ah ayca kon dimanche bi ñëw incha allah dinaa ñëw ci tool yi alors ñu def benn tour de table ñu jeexal très rapidement ma bàyyi la nga rebondir foofu la jor côté boobu waaw euh, lim ci mën a wax mooy euh, pour mën a vulgariser mooy ni ngeen ko indee. vacances citoyennes yi dafa naa amoon na fi mhm. loolu temps avec Diagne Fada ñun ñëpp di nañ fa jaar. mais yéen vacances citoyennes yeggale woo. tool leen mooy mooy set setal bi rek. set setal bi affaire yi xam nga Sénégal aussi il va falloir que yéen. si c'est des bonnes actions tamit il faut ñu koy concrétiser. ak tamit pérenniser mooy maanaam di koy yàggal. voilà def ay 40 ans 20 ans chaque jour gars yi nekk ci. Mhm. parce que dañu war a mën a jàpp sax chaque samedi waruñu nekk ba samedi premier samedi du mois xam nga euh, la euh, Macky daan na ko def bi door a ñëw chaque lundi xaw ma ñëpp daje. premier samedi du mois cette année amaat euh, ñëw na ak bale bi chaque samedi déedéet du chaque premier samedi du mois déedéet chaque samedi lay doon sax chaque dimanche. chaque dimanche deux heures de temps après qu'on tourne autour euh, dem ci tool yi ñu mën a xamal lan mooy tool lan mooy njëriñu débouché yi ñëpp inondation yi jàppale que les gens ah, de inondation yi war nañ ci wax dem fële inondation yi moom liñ ci injecté ci xaalis te ba tey loolu noonu réglé wul gens circulent comme ils ñu war leen mën a loolu moom dañ ko war a li lijjanti loolu moom la ñu war a njëkk teg comme rapport waaye mhm. les cas de l'ONAS et autres les cas de euh, Touba et autres il faut que ko parce que mhm. yana eu énormément de milliards yu fa gars yi injecté te ba tey tey la gën a pax mi gën a bëri ndox mhm. waaye loolu bay côté bi noonu ngeen wax tamit bon dañ ci félicité te les jeunes tamit gars yi mën nañu gën a ak apparaître par rapport au nouveau contrat bi fi Macky Sall bàyyi woon ak waa Woodside société australienne bi par ak le pétrole bi gaz bi pétrole ak gaz bi contrat boobu na ko jomaay tegaat ci table bi c'est de même que contrat bi nga xam ne bi ñu koy raffaire raffermage bi la voilà foog ñu nañ ko teg nañ ko def quatre-vingt pour cent suñu boo xam ne bon d' accord ñoom ñoo de l' argent d' exploration cinq ans australien après léegi on a gagné combien Petrosen Macky Sall fa nga jugee woon pendant mhm. vingt ans mais loolu il ñu liggéey ko mhm. il faut que vraiment ñun ñu bénéficier ci mais Sénégal 20 pour cent de na koy amee. ci sa pétrole 18 pour cent 18 pour cent. et puis am na yeneen 5 pour cent yu lang yoo xam ne kenn xamul fu mu dugg. ay si <laughs> li ñu wax bu ñu toppee kii bi société de droit sénégalais. contrat yi Suez tamit ndox bi faw ñu lijjanti ko ak SDE ak euh, SONES. Mhm. faw ñu wàcceewaat loolu contrat yi contrat d'inondation yi. Mhm. bon tamit jeunesse bi mooy ni ñu wax ah, on est de tout cœur. jaraloon na leen ñu dee pour sunu alal foowee ko ñi nga xam ne démb mel ni man yoruñu woon cent mille francs lu ëllëg ñu yor ay un milliard di ko financer nu la neexee di ko kii loolu dal na ñun sunu gouvernement euh, sunu régime parce que man lu Laay Wàdd lu ko tax dama naan. mais gars yi nee nañ réew mi maam maam période Laay la yàqu. Hmm, non gars yi. ko de nit ñee ko wax. bu ah, samay wax. waaw ñu ñun ñi bon da mel ni rek de ndeysaan bi ma demoon <laughs> sànq plateau ñuy wax ci ñu mel ni ay paa yu mel ni ay Mody Niang ak yooyu. <laughs> gars yi li ñuy wax dañu. mais temps yi sonal na leen nag. non sonal lu ñu sa benn. temps yi moom Modou may leen dara. non da sonal lu ñu def sa point de presse pendant deux heures de temps wala benn xale bu mel ni Diomaye Faye xamul dara ci réew mi <laughs> dañ koy mu ngi door a jot réew mi nga def ay cinquante ans de d' mais boo koy waxtaan ci point de presse pendant deux heures de temps waxal ñu ko Diomaye école yi nii lañ ko war a defee éducation bi nii lañ ko war a taxawalaatee parce que mooy li nga wax sànq dañoo réformer waat notre éducation. Mm-hmm. parce que éducation bi ça le plus ñoom ñoom la ñuy produire ci chômeur kenn moom la wax nu mu toll ci demandeur d'emploi te ay connaissance vide lay mujj indil. en mhm. quelque aride. mooy connaissance yoo xam ne du amal benn njëriñ suuf si ak réew mi. Mhm. te pourtant moo di yow waxal ci yooyu mais doo topp suba ngoon naan pendant Laay Wade bi mu fi nekkee Laay Wade bi mu fi nekkee Laay Wade. da ngeen jàpp ne da leen ciblé Laay na réew mi. da nga jàpp ne da leen ciblé. non du ma ñoo yàgg na loolu def ko ci bind 4 livres ak 200 parutions bon malheureusement mais pour jaar ci dañ koy dañ ko war a taxaw. ñun on a voté pour Diomaye. ok loolu laay wax fépp euh, on n'est pas dans l'opposition. malgré les divergences te ci. ah yéen bokkoo ci opposition bees. non mais ku voté. Hmm. le vote man personnellement ma war laa waat les 500 000 électeurs du Parti démocratique sénégalais yu compte ak cinq compté ñi nga xam ne bu laay waat ne sa xët ñu demee. li ñu digal ci kon nii nii bokk leen ci opposition bi. dañ ko voté. ok mais non opposition mooy lan en quelque sorte. ah mais gis nañ gars yi génn ne ñoom léegi opposition la ñuy incarné. nag foofu nag laa la foofu ñu gars yi moom laay wax chaque fois dans les plateaux ak autres il faut ñu xam liy opposé parce que tamit mënuñu nekk fii di non nañuy nawlante. Mhm. gars yi liggéey ngeen pendant douze ans. pour régime Macky Sall am ngeen ci lu ne pas am teraangay àdduna mais am ngeen ci yenn privilège ak jéem def tële na leen mënatoo leen ñiy jëlee leen fi indi fi ñoom jomaay ak ñeneen da nga leen di xelal ni leen fii moo baax fii moo baaxul. mooy aux États-Unis pendant deux cent ans y deux partis. Mm-hmm. kii bu parti républicain bu ñu paree wàcc ñu dem indi kay Obama ñëw mhm. Obama bu defee ñaari mandat quatre ans quatre ans bu bu tëlee mu puus ak ay ñitam waaye républicain yi Donald Trump yéeg bu defee juum juum Joe Biden ñëw mu taxaat après ki toppoon ci Obama nekkoon adjoint ñoo présenté wu pendant deux cents ans noonu lañ dundee tey États-Unis ngi nii fi ñu dem mhm. mais Sénégal war nañ mën a toll foo xam ne tey APR liggéey nga ba pare ñëw nga taxaw jàkkaarloo Diomaye mais a te pourtant waa ndeysaan <laughs> saaga donc ay traître ngeen ay ay pour ay ay jalagóor ngeen ay kii ngeen <laughs> merci beaucoup te fekk du loolu report élection yi la non non bien avant report yi sax même euh, dans les années parce que mais pourtant yéen lañ daan àndal ci lu ne yeeyu askan bi laa ko coalition de ah, na boo xam ne da ngeen da ngeen da ngeen da ngeen. la la coalition de 2022 législatif. jo euh, patriote yi la ñu àndaloon. intercoalition bi ñun ñëpp la ñu doon àndal. opposition la daan mos a àndal. Mhm. bon loolu tamit di wax ci gërëm ci ñu bari. Euh, di la sant. di merci beaucoup Lat Diop waaw wax ci xanaa gërëm sama yenn. xarit ak anandoo yi. d'accord waaw. loolu waaw dem ci jëmale tàmbali c'est Assane euh, Ndiaye euh, Dóoda xale champion xaritu Max Carapide. Mhm. ak euh, ñoom xarim Thiam yu suñu Yunus Diouf. Assane Dóoda xale moom mon ami frère di ci gërëm tamit Yves Ndeye et autres. Eh, Yves ak El Hadj Bari ak waa Jëpp sama rakk yooyu. d'accord gërëm tamit waa Liberté Bousso Diop ak Daouda sama doom baay. Mhm. ak eh, ñi nga xam ni ñoom Ousmane Mbaye eh, fanaa yow Medina. effectivement waaw ak mhm. Bouna Seck maa leen di gërëm ñoom ñëpp. ak PDS nag mu ngi fi ba tey. tey mm. PDS di koy indi ba sañal ah non. <laughs> d'accord sunu góor gi mu yàgg fi loolu. incha incha allah euh, sunu mag ji sunu waaye mu ye wàcc fii Sénégal jàmm ak salaam. incha allah waaw Karim war na ñëw nag. ñëw jot na war na ñëw woo woo dinaa ko woo téléphone. <laughs> merci beaucoup alors merci Lala. Euh, Saliou moo bàyyi la nga terminer rek très rapidement euh, lan nga bëgg a jeexale ak ñi nga xamante ne ñoo ngi topp Pastef. projet bi ah li ñu di xaar bëri na ma bàyyi la nga terminer rek très rapidement. merci Lalla d'abord dama lay remercier ci invitation bi di wax ne rek euh, man ndaw laa. Mhm. dafa am loo xamante dafa touché ndaw ñi mu intéressé ma lool. mooy li mhm. nga wax tout à l'heure mooy immigration clandestine bi di wax ndaw ñi rek ñu bañ a ñu bañ a ñu bañ a perdre espoir ndax mëbët bi ñu amoon wala yéene bi ñu amoon ci réew mi moo ngi fi ba tey te jéego yi ñuy teg wane ne ñu ngi ci yoon bu baax. donc bàññi nga ma dëkk immigration clandestine da koo laal trop. effectivement moo tax fu ma toog à chaque fois dama koy dama koy wax mooy mu nekk ñoom te ay ndaw yi nag leen di xam di leen gis ñii ñuy jël gaal yi dem donc nañ toog nag ndax yaakaar la ñu perdoon bi changé na ñii fi nekk jub nañu du du ñu ñu du ñu ñuy luubal seen alal dinañ jël seen alal delloo leen ko mu duggaat ci yéen dinañu fexe xar suñu tànk tubéy ba seen nekkin gën a ñoŋ ba ku war a am liggéey ku war a am formation bu jaar yoon am formation bu jaar yoon mhm. ku war a jot ci financement nga jot ci financement mu yomb ku bëgg a béy tool tool yi suuf si ñu delloo leen ko mhm. ndax li ñu sonal surtout ci dëkk bi mooy lan tey ñun ñu ngi nii bi ñu bëggee suuf dañoo dem àbba ñu aal ñu mhm. mais c'était tout un problème te pourtant ndaw ñoo xamante dañoo volontaire rek pour bay li koy li koy firndal li li ko li ko waral lu dara lu dul suuf si ñu jël accoparé ko bu bu ñu jox ko Sénégal bu bëggee du si jot ngay nekk homme politique wala leader politique nga caxacaate su def sa lotissement ngeen accaparer des hectares nga téye ko comme li am mbuurkat hmm. loolu fu xale la te am nañ yaakaar ne loolu yëpp jeex na fi yéen ndaw ñi xam te ne yéen la seen yaakaar tasoon na yaakaar gi dellu seen ndax yooyu yëpp dafay jeex hmm. donc di wax waa Bargny waa Rufisque ak fu mën a doon ba Saint-Louis nañu toog te xam ne yaakaar dina dellu si incha allah rabbi hmm. bàyyi gaal yi ñu jël ndax suñuy morom ñoo fay génn àdduna mhm. jël gaal war a dem ba Espagne lu compliqué lu difficile mhm. tu as mille chances de rester mhm. en haute mer tey ji ña fa dem am na si ñoom te ñu ngi fa toog ba tey ji amuñu liggéey donc foofu ñu jàpp ne Eldorado du Eldorado nañu toog ni Europe mel mën nañ koo liggéey Sénégal ba Sénégal mel noonu nañ ko gëm rek nekk ci nangoo liggéey te xam ne mën nañ soppi réew mi sax te dinañ ko soppi mm. di wax ne rek di encourager ñëpp nag di encourager ndaw ñi nañu ñëw fekk ci la jeunesse patriotique mm-hmm. yi ndax bay moo mën a dundal réew mm-hmm. nañu gëm suñu bopp dem ñu jox ñu suuf si ñu bay dundal la Sénégal ndax la ñuy jégaani am nañu suuf am nañu naaj am nañu taw mm-hmm. loolu tubaab bi sax amuñu ko donc ressources yi yàlla jox il suffit juste des bras et des cerveaux pour travailler la terre. Mm-hmm. et pour nourrir le et pour nourrir ce pays. te am nañ ko. Mm-hmm. jërëjëf ci invitation bi jaajëfal ñu c'est important merci beaucoup. alors ni lay demee saa su nekk sur Sénégal set amoon nañu plaisir dalal leen comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk di defal mention spéciale à la régie tuuti Ablaye Ismaïla yii ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax tey nag damay dem marché Sandaga ki nga xam ne moom mooy Mamour donc moom moo jàpp tey ci tenue bi di ko jaajëfal bu baax. baax moom mi la di Mamour ah di ko wax ne kontaan naa bu baax a baax temps yi habillement bi moom moo si jàpp di leen wax ngeen fay dem xam naa ne après dinaa affiché numéro bu ko defee ngeen mën a jokkoo moom di leen wax restez connecté sur Sénégal 7 jërë ngeen jëf dinañu dellu si waat ci kanam ndaxte war nañu def entretien spécial ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Tounkara donc bu leen ko rate xaar leen ko à partir de 16h incha allah.